proposition de loi bi nga xam ni demoon na assemblée ci njeexitalu weeru décembre xam ngeen ni du proposition de loi boo xam ni benn groupe rek moo ko jóg yëkkati dafa am processus bu gudd boo xam ni moom moo jur lool ci waxtaane mbir mi ni mu demee ci wax ci ak askan wi nga xam ne ñoo moom réew mi ndax Sénégal lu ñëpp bokk la waxtaan ci ak kilifa yi ba ay millions yi sénégalais àndandoo ñoom ñépp ni li ñu bëgg mooy ñu criminaliser mbirum góor jigéen ci senegal te sénégalais yooyu ko wax ñi nga xam ne ñooy seeni kilifa muy kilifa yi nekk ci diine ji ñi ne ci lislaam bi ñi ne ci jàngu bi ñi ne ci bois sacré bi te ñu mën cee tudd yi tamit xalif généro yi ak njiiti association islamique yi ak mbootaay yu takkoo takku ci société civile bi ay mbootaay yi yoo xam ni ay jigéen a ko séq ay mbootaay yoo xam ni ay ndaw ñoo ko séq mboole seen ñoo àndandoo ni dañoo bëgg proposition de loi bi ñu criminaliser ñu mbirum góor jigéen ngir protéger suñum réew protéger génération yi ñu dëkk yemuñu ca loolu nit ñi génn mbooleem réew mi yépp ñu def ci ay manifestation te bi ci gënoon a fés doon bi ñu defoon le 23 mai waaye donte lii lépp askan wi wane na ko te bu leen fàttali constitution bi moo consacré sañ-sañ bopp wax ni askan wi ñooy kilifa réew mi article 3 bu constitution waaye malgré lii lépp ci bëgg gi askan wi bëgg lii ci taxaw gin ci taxaw ci seeni kilifa yi tamit signé gu ñu signé pétition wane ni lii lañ bëgg assemblée nationale wan na leen ni yéen askanu senegal li ma séq ak yéen du dara lu dul ñun suñu soxlaa rek jàppe leen ay ginaar yoo xam ne dañuy yor suñu dugub rek suy seen wet ngeen ñëw for ñu jàpp ca lañ cay jàpp def lañu ñu bëgg a def wanaat leen ginnaaw waaye nekkuñu fi ngir lijjanti seeni soxla bureau assemblée nationale muy juróom-ñeenti nit ñooñu wale nañ itam ni kilifay yi diine yi nekk ci réew mii amuñu fi kàddu te seen signature tekkiwul dara Moustapha Niass ak juróom-ñett yi mu àndal keroog jëf-jëf ju ñaaw ji wane na ni signature u sëñ Babacar Sy Mansour ak sëñ Mountakha sëñ Mouhamadou Mahi Niass xalif général des Layènes Albekaay bu Ndiassane xalifa bu Medina Baye xali xalifa Medina Gounass ak mbooleem xalifa yépp sëñ Muniru Njegéen ak ñeneen ñi ma tuddul ñépp wane nañ ñoom bureau assemblée nationale nii ñii seen kàddu amul solo wane nañ ni ñi seen signature amul effet amul solo te pourtant ñoom ñoo ngi jëmmal fi mu ne agenda boo xam ni danañ ci dëkk tuuti ci kanam ma nga bàyyi ko ci bitim réew ay franc ki góor jigéen ay nit ñoo xam ni jubuñu xamuñu fu ñu soqi ko imposé leen ko ñu koy doxal ci turu sénégalais lii mooy jëf ju ñaaw ji nga xam ni bureau assemblée nationale def nañ ko keroog ñun nag dañoo xëy rek gis aw këyit wuy daw ci mbaali jokkookaay yi réseaux sociaux yi muy daw di wëndeelu ñu ni ab communiqué la xaw na ko nuru ndax amul dara luñ tegtal ni assemblée la bàyyi ko waaye ci biir communiqué bi dañ koo jàng gis ni dafa mel ni ki bind communiqué bi ak ki bindoon communiqué bi groupe parlementaire bu Benno Bokk Yaakaar def ca ëllëgug bi ñu déposé proposion de loi bi daanaka wuute wuñu même terme yi lañu utilisé mu doon lu lu jaaxal lool ndax groupe Benno Bokk Yaakaar dafa am fu ñu féete ñoom mën nañoo comprendre sax ñu waxe neen ne waaye bureau assemblée nationale kooku institution lay taxawal lay représenté jàpp nañ ni askan wi rek la waroon a féeteel te proposition de loi bi nga xam ni moom moo demoon assemblée nationale ay boroomi xam-xam ci liggéey ay boroomi xam-xam yu mag ay théoriciens ak i praticien du droit ay boroomi xam-xam ci dund ak dund dundin muy science sociale ay boroomi kàddu ay parlementaires. ak yeneen kilifa yu baree bari joxe nañ ci seen xalaat weccoon nañ ci waxtaan nañ ko ba tënk ko ni ñu ko tënk loolu nag doonoon lu cooba coobareewu askanu senegal waaye diirub loolu bi ñu ko yëkkatee ak li ci askan wi ànd ànd terewul waxtu wu ci nekk li nu yoon may rek lañuy def te fanu yoon yam looy fa la yem ndax loolu lañ gëm ñu bari danañ ci def repro euh, def reproche sax nañ ñu lan moo tax ngeen jàpp ni yéen da ngeen a war a jaar rek ci yoon ñun leen ñun ci yoon rek la jaar ku jaar ci ñàll gisee ak lu la la jël kon ñun ci yoon la ñuy jaar waaye jaar ci yoon yépp terewul ñi ñuy jëflanteel ñoom dafa mel ni dañ ñoo won ak xeeb bu ñu xeeb bu ma waxee xeeb bu ñu xeeb nag askan wi laa wax xeeb gu ñu xeeb askanu Sénégal waaye xeeb gu ñu xeeb suñu kilifa diine yi mbokki senegal dafa am luy am ci réew mi di fi am booba ba léegi te kenn ku nekk war na ko bàyyi xel war na koo xoolaat muy lu tiis muy lu metti mooy réew mi dafa mel ni ak boot di konte daf fee am te li ci gën a dangereux te gën a dangereux itam te doy waar mooy suñu kilifa diine yi lañ ñu xeebal te teguñu leen fenn te tàmbaliwul tey nag ñun waxuñu ne dafa tàmbali tey xam ngeen ni mën naa ci fàttali rek ñaari yëf yu fi jaaroon te loolu dañ ko war di fàttali pour ndaw ñi di ko xam ba ñu xam ni ñun ñi nga xam ni ñoo rëy ci ñun lool doon ay symbole dafa mel ni organisation bi fi am ñoom joxuñu leen benn cër te teguñu leen fenn xam ngeen ni bi réew mi jotee boppam ñu ni day am indépendance dañ ni sénégalais yi kat yéen ñi ko séq ñépp dafa am ci seen biir yéen sénégalais yi te ñoo fi ëpp ñoo xam ni amuñu xam-xam amuñu dayoo te mënuñoo jëmmal dara loo xam ni am na njariñ ñu ni ñooñu ñooy ñu ni ñooñu ñooy nga xam ne dañoo jàng diine jaar ci daara ñu ni ñooñu kon lii jiite réew mi mënuñu cee bokk kenn du leen ci laaj seen xalaat itam looloo waral dem leen ci article 28 bu constitution bi réew mi amul ku ko mën a jiite te fekkul nga mën a wax farañse mën koo liir ba noppi mën koo bind mooy kon ku demul jàng français ba ñu tàggat la ci ba noppi ba nga mën koo liir man koo bind man koo wax mënoo jiite réew mii kon ñi ko jàngul nag te ëpp ci réew yi nag ñooñe dañoo jàpp ni te loolu message la boo xam ni ñi jaar ci daara nañ ko xam kenn tegu leen fenn lii mooy la réalité au Sénégal jàpp nañ ni ay nit ñu xamul lañu jàpp nañ ni ay nit ñu doyadi lañu jàpp nañ aussi ni ay nit ñu amul benn benn benn benn benn taxawaay bu mën a jëmmal dara lii il faudrait que sénégalais yi mu leer te loolu moo waral mépris bi bureau assemblée nationale am ci ni mu traité dossier bi sobantal gi bureau assemblée nationale am ci biir dossier bi ba ci groupe parlementaire bu benn Bokk Yaakaar danaa ci dellusiwaat léegi joxoñu ñu mbooleem député yi bokk Benno Bokk Yaakaar ndax am nañu ànd ak ñun ci combat bi kon bi senegal jotee boppam dafa am doomi sénégalais yoo xam ne nee nañ leen yéen dem leen taxawi fële du ngeen bokk ci ñiy saytu réew mi ëllëgi réew mi fan la jëm fu ñu jëlee alal fan lañ koy def lan ak lan ak lan ci dund nit ñeeg seen dundiin lañ ciy jiital def ko muy priorité loolu seen yoon nekku ci yéen moo waral bi ñu tëggee le code de la famille président jébbal ko kilifa diine yi ñu càmbar ko gis ci 74 articles rédhibitoires juróom-ñaar fukk ak ñeent ci ay articles yoo xam ni lu ci weddiwul li wax yàlla weddi na wax yonent bi sunnaam alayhi salaatu wasalaam xam ngeen boobu ñan la fi fekk sëñ Abdou Aziz Sy Dabakh sëñ Mandione Laye cheikh al islam cheikh Ibrahima Niass sëñ cheikh Mbacke Gaynde Fatma ak yeneen kilifa yu baree bari ñu daje jàngat ko ñoom ñoo génneel seen bopp nombre bi ma bind nii bi ma wax nii. gis nga bi ñu defee seen i observation jébal ko président danoo jekki jékki rek dégg ni loi ba jàll na. kon mépris bii naka jekk mu fi am kon Sénégal su fekkente ni waxtu wu ne dañ naan ñun nu sommes un peuple à 99 pour cent de croyants église bi la ñu gëm wala l'islam la ñu gëm te pourtant suñuy kilifa nii la système bi di doxalee ñoom ba noppi ñu bëgg yaakaar ni kon ñi jóge ci système bi mën nañoo yóbbu wala ñu porter suñuy aspiration loolu ndaw ñi dama yaakaar ni mat na seetluwaat yemul ci loolu ba ci 95 bi ñu ko soulevaatee sëriñ Abdoul Aziz Sy Al Amin moo doon coordonné action boobu ba ci 2010 bi ñu déposé une proposion de loi encore boo xam ni l'honorable député Imam mbay Niang moo ko porté woon en 2010 lañ ko déposé mu jëm ci un code de statut personnel mooy julli ci am seen code de la famille bu boo xam ni dañuy sukkandiku ci alxuraan ak sunna mboolem foyer religieux yi association islamique yi ñëpp a ci dugal seen liggéey gis nga booba dañ ko ataaya mbaa ñu lëmase ko caaf waxuñu fii lii agsi sax moom àggu fa kon bu sëriñ Abdul Aziz Al Amin coordonné lu toll noonu ci turu ay kilifaam laa wax ba ñu déposé ko ñu jëflanteeg ñoom loolu dama ni mbokk yi bu ñu ko waxee bu ñu ko waxul suñ kilifa yi teguñu leen fen et l'histoire se répète mbir yi mu moo waa tey jii tamit gis nañ ni engouement populaire bi am takku taxaw gi askan wi jóg yépp terewul bi ñu déposé proposition de loi bi waxuma la sax mépris bi am ci nin ko jël waaye gis nga danoo jalgati yoon ba noppi jox seen bopp sañ-sañ yoo xam ne amuñu juróom-ñeenti député ñoo wane ni liñ jàpp ñoom mooy kilifa diine yi seen kàddu amul solo juróom-ñeenti député ñoo jàpp ni askan wi ay bëgg-bëggam amul solo ni mu ko xoole rek mooy koo xam ne daal na jëflanteek moom ci ak ñàkk nawlante su ma la soxlaa nag doole ji ci yow laa koy jël si damay ñëw ëndaale xaalis ne la kaay ma corrompre la kaay ma jënd la su ma noppee ci li ma doon am ba am pouvoir bi nag bu boobaa ma wan la ginnaaw déglootuma la te say bëgg-bëgg duma ci taxaw ñoom juróom-ñeent ñi bi ñuy jël décision bi dañoo wane seenu jébbalu ci exécutif bi ndax ñoo ngi leen di wax mbirum yoon la règlement intérieur tënk leen ñu ni ko fi ñukk naan président nee président nee na waaw waxi président kañ la doon loi waxu président kàddoom kañ la doon loi wala boog loolu lu bees la loo xam ne ñun xamuñu ko woon waxu président di loi président li mu mën a jëf la ca gën a rëy signature am ab décret la mën a jël te loolu ci règlement yi la bokk bu ñuy xool la hiérarchie des normes juridiques réglement lu suufee la lool décret lu suufe la lool par rapport ak loi kon président kàddoom mënta doon loi waaye wane nañu ñoom seenu lu ci exécutif bi du lu bees aussi bu ñu ko joxeñ ñi fi nekk nii rek waaye naka jekkit lii mooy am yéen a ngi fàttaliku xam ngeen ni président Senghor motion de censure la ñu def kon assemblée la ñu jaar ñu daaneel Mamadou Dia mu utiliser justice bi ñu éliminer ko les mêmes pratiques le président Abdou Diouf doon def les mêmes pratiques le président Abdoulaye Wade doon def yéen a ngi rappelé wu bi ñuy euh, indil jafe-jafe Idrissa Seck am na ku siiw ci réew mi tey am fi ndombay baat keroog acte d'accusation bi moo demoon assemblée defi ko kon assemblée la ñuy utiliser éliminer jël utiliser justice bi instrumentaliser ko daggate nit te tey jii président Macky Sall les mêmes choses lay def aussi kon ngeen yaakaar ni ñun fi ne am nañ ay institutions yu solide déedéet séparation de pouvoir amul dañoo jël ñetti wos teg ko ci réew mi mu ŋànkal ñu suñu pouvoir suñu kàddu ñaari institutions yi dem jébbalu ci kenn ki muy exécutif bi li ci gën a yéeme mooy acte bi nga xam ni juróom-ñeent ñi nga xam ni ñu bari nee nañ dañ leen a war a lim ñëpp xam leen sax juróom-ñeent ñooñu te Moustapha Niass nekk ca kanam bopp ba juróom-ñeent ñooñu wane nañ ñoom exécutif bi lañ fi nekkal ak lobby yi nekk bitim réew sénégalais yi ràññee nañu xàmmee nañu fii kenn waxu fi nit ku efféminé fii kenn waxu fii dañuy topp nit ñi di yëddu lan la ñuy def ci seen intimité loolu diine ji gën a yaatu ci réew mii wala boog muy diine lislaam ak diine catholique catholique yépp jàngu bi lu ci ne dañ koo tere kenn du yëddu nit di ko topp di seet la muy def ci biir intimité kon mbir mi du lool la ñuy wax ànd sàmm jikko yi li mu wax mooy agenda boo xam ne Nations Unies moo dellusiwaat yi ni mu gisee woon àq ak yelleefu doomu aadama ñu koy wax droit de l'homme te tey du ngeen déggati ñuy wax loolu les droits humains la ñuy wax ndax dafa am évolution aussi droits humains yooyu nag ñoom danoo jàpp ni ni góor ak jigéen mën a gisante yàlla def seen diggante cofeel ñu jaar fan war a jaar ba ànd ci sëy jàpp nañ ni aussi góor ak góor mën nañ ko noonu jigéen ak jigéen mën nañ ko noonu lañu xamoon ci wàllu famille muy góor ak jigéen fonde ko jàpp nañ ni léegi nag ay famille yu bari ñoo am góor kese mën naa doon famille jigéen kese mën na koo doon góor ak góor mën na koo doon jigéen ak jigéen mën na koo doon ñaari góor ñetti jigéen mën nañ koo doonandoo ñetti jigéen ñeenti góor mën nañ koo doonandoo li ñuy wax polyamour ñoom gis-gis boobu lañ bëgg a imposer àdduna kon mbokk yi ànd sàmm jikko yi nit ñi nañ dégluwaat bu baax te xam li muy wax lan la mooy perception bi nga xam ni moom la waa tugal am ci li doon dox te li ci ëpp sukkandikoo ci lu bàyyi ko woon ci asamaan ñu ni lii lañu gëm loolu lañ jàpp ni ñoom njuumte la nañu bàyyi nit ñi ci seen coobare ku ne la nga bëgg a def nga def ko lii mooy problème kon xam ngeen ni dañoo nekk ci kanamu défi civilisationnel dafa am lu ñu walla wërbati te wëlbati googu ñu koy wëlbati bu ñu seetaanee kenn ëpp ñu ci responsabilité ndax bu fekkente ni dafa am ñu yàq nga taxaw gis ni da ngay yàq donte nit ñi seetaan nan la ci yem itam war ngaa fexe ba yàq googu ñu dàkkal ko soo ko mënul it loo ci man war nga koo def ba ñu xam ni yow sa kem kàttan def ko sénégalais yi yeewu nañu xam nañ li xew itam xam nañ ni agenda bi bu doxee dana yàq lu bari ci sunu système de valeur bi ñu amoon ak sunu ndono xam nañ itam ni alinéa 3 bu article 319 bi ñuy wax ci contre nature contre nature la mu doon tekki 66 tekkeetu ko fi mu nekk nii ci 2022 loolu ko xam ku nekk xam nga ginnaaw tooñ gu rëy gi nga xam ni bureau assemblée national def nañ ko ak jalgati gu rëy gi nga xam ni def nañ ko sénégalais yi wane nañ seen mu naqar mboole seen yéen gis ngeen ko ñu bari dañuy doon wax sax lan moo tax ci saasa rek daal di leen réagir waaye ànd sàmm jikko yi doxewul noonu ànd sàmm jikko yi day mbootaay goo xam ni ñëpp dañ koo séq te lu ñëpp bokk lu ne ku ne da caa ne te yéen a déggal seen bopp yéen a gisal seen bopp boobaak léegi fenn fu ci nekk ci pàcc bu ne ci réew mi dégg ngeen fa ay nit addu ci mbir mi wane ni ñoom am nañ ci naqar ak mbetteel yamul ci loolu kilifa yi jëllu nañ kàddu te bindulu nañ itam wane ni mbirum góor jigéen crime la fa yàlla te crime la yi tamit ci ak nite crime la ci ak nite ñu fàttali nii position bi nga xam ni moom la Sénégal jël ci institution internationale yi dafay wane lu leer ci Sénégal dilatoire bi nga xam ni ci la nekk fi mu nekk nii sunu institution yi tamit ci dilatoire bi ñu nekk ci EPU bu 2018 EPU mooy jotaay bi nga xam ni moom la Nations Unies à travers le comité des droits de l'homme de Nations Unies di amal te réew mu nekk ñu lay woo liñ la sant ñoom ci seen gis-gis ci wàll yoon ak yoonal ñu ne la soppil nangam ci sa constitution soppil nangam ci say loi soppil nangam ci say règlement buñ la ko santee nag juróomi at yu nekk da ngaa war a ñëw Nations Unies saytu la ba xam ndigal yim la joxoon yan jéego nga ci def Sénégal dem na EPU bu 2008 dem na EPU bu 2013 dem na ëpp EPU bu 2018 Sénégal mi ngi waaj pour dem 2023 chaque cinq ans Sénégal day dem EPU bu 2018 Sénégal dafa wax ni lu jëm ci mbirum jigéen ñiy sëy góor ñiy sëy ñi nga xam ni danañ sëy ñaar ñi transgenre yi ak ñi mel ni ñoom délégation bi leeral na bu weer ni Sénégal réewum Sénégal daanul mbirum góor jigéen te amul kenn ku nekk ci biir senegal ñu tëj ko ci kaso te mbir mi rek tax ñu def ko li ma wax c'est vérifiable dem leen ci rapport bu EPU bu 2018 lii la Sénégal wax kon nag leer na ni Sénégal position bi mu ci jël à l'échelle international ci kanamu Nations Unies lu leer la ñoom daanuñu mbir moom te itam bokk na ci argument ñoom bi ñu avancé mooy acte contre nature daan nañ ko ba pare soxlawul kon ñu ciy delsiwaat waaye xam ngeen ni acte contre nature en 66 booba ngóor jigéen bokkoon na ci li may wax lu leer la booba ngóor jigéen bokk na ci ndax lu safaanoo ak li ñu xamoon rek dañ koy dugal ci contre nature waaye xam ngeen ni dafa am ay jéego yu ci am li ñuy wax évolution loolu mooy bi ñu demee ak lobby góor jigéen ñi xeex boo xam ni def nañ ko ci 1990 le 17 mai 1990 Nations Unies ci bànqaasam bu ñuy wax OMS moo dindi ngóor jigéen ci mbir yi nga xam ne jàppoon nañ ni lu normalul la qu'on appelle la classification internationale des maladies donc jàpp ni lii lu normal la léegi kon kooku bokkatul ci contre nature waaye yemu ci en 2011 Nations Unies dafa sax faf jéggi teg beneen jéego mooy dafa consacrer li ñuy wax ay droits nouveaux ak ak yelleef yu yees ci résolution boo xam ne wax nañ ko waxati ko répété ko muy la résolution 17L9 bu 15 juin 2011 ay droits nouveaux la consacré mu jëm ci góor jigéen yooyu ak minorité yi kon loolu am na évolution bu ci am looloo waral contre nature ngóor jigéen bokkatu ci kon nag lii ma wax su fekkonte ni Sénégal doonul champion du monde xawma fu mu amul coupe ak raaya waaye Sénégal am na ko ci signature ak ratification de traité et de convention Sénégal wax nañ ni moo raw ci àdduna bi ñëpp moo raw ñëpp ci fànn boobu moom lu tubaab yi ñëw ni tissooli mu ni yarhamukallah bu tubaab bi mu ni daa weex balaa àggale xëgg ak weex mu ne ko tàll bu tubaab yi nee dafa ñu balaa àgg ci lëga mu ni ko kukk kukk kukk Sénégal moo raw ci àdduna bi ci signature de traité li ëpp ci traité yi Nations Unies def Sénégal signé nañ ko Sénégal ratifié na ko te li ci gën a metti te gën cee metti mooy Sénégal daanaka daanaka daanaka sañas naa wax ni du def réserve moom day indi mu ni ah indi leen ma naan rek lii posen la mu ni bàyyi rek man naa jox sama askan ñu naan bu ñu faatoo nag mu ni sama yónneeku ci yow daal tubaab bi li nga bëgg moom naa koy def rek déem a gërëm rek fii la Sénégal toll te xam ngeen ni bu ngeen demee ci constitution moo tax ñu li ñuy wax lu ñu leer la c'est c'est très technique te bañ tàmbalee ba léegi amul kenn ku mën a contester lii ñuy wax nii dem leen ci article 98 bu constitution bi lan la wax mooy Sénégal bu signé ab traité wala convention bu ñëwee ci réew ñi ba ñu yóbbu ko ca ngombalaan nga ñu ratifié ko bu ñu ko génnee ci journal officiel dafay doon une loi supranationale dafay tiim loi yi mu fekkoon ci réew mi mais c'est extrêmement grave ce qui veut dire que ni réew mi nañu wóor ni man nañoo tas sax assemblée nationale jaratu ko ndax traité bu Sénégal signé buñ ko jaaralee fi ñu ko war a jaaralee mooy tiim loi yi mu fekkoon ci réew mi nga xam ni kon il faut ñu soppar ñi loi bi mu fekkoon ci réew mi moom la ñuy wax harmonisation yamul ci loolu ba tey ëppee bu 2018 gis nañ ci Sénégal waxit ni mbirum góor jigéen du délit Sénégal te amul benn benn benn poursuite judiciaire boo xam ni teg nañ ko topp koo xam ni nit la te lool rek a taxoon mu def kon nag ginnaaw bi nga xamante ni Sénégal résolution bi nga xam ni mooy résolution bi ñu waxoon sax consacré ay droits nouveaux depuis 2011 ak bi mu ratifié tamit le protocole de Maputo ci 2005 deseetu ko woon dara moom Sénégal lu dul nag jéem a seet yan xàll ak yoon la mën a jaar ba duut duutal fi mbir mii Nations Unies bëgg ci loo xam ne askan wi du ko xam. jaare ko ci par exemple la SNEC 2 SNEC 2 soxlawul ma ci taxaw ñëpp xam ngeen vision bi xam na ni à l'horizon 2026 mooy Sénégal bu fi kenn boddeeti kenn imam beeg góor jigéen beeg ñëpp ay bokk yem àq ak yelleef ci biir réew mi waaye jame koy ci njàng mi ak njàngale mi ci daara yi muy lan les principes directeur internationaux sur l'éducation complète à la sexualité boo xam ni UNESCO moo ko porté te Sénégal waxtaane nañ ko ba tënk li ñu tënk fi nekk nii di ko war a tàbbal ci biir njàng mi ak école yi ba semaine bii ñu génn rek medina Yoro def nañ fa séminaire boo xam ni ñoo ngi doon waajal lii yemul ci loolu ñu ni buñ jaaree ci njàng meeg njàngale bi état bi di ko doxal itam nañu fexe itam ñu dugal ci parlementaire yi à travers le PGA PGA boobu assemblée nationale bu Sénégal bokk na ci 143 pays ci àdduna bi ñoo ci bokk assemblée Sénégal bokk na ci ay député sénégalais ñoo ngi ciy liggéey te lan lañ leen di liggéeyloo nañu fexe ba waajal ay yoon yoo xam ni disposition buy xañ nit ki àqam ak yelleef ci wàllu orientation sexuelle et identité de genre nañ fexe ñu supprimer ko nañu fexe ba waajal ay loi yoo xam ni tamit daf koy légaliser kon ñoom ñoo ngi ci perspective yoo xam ni yu leer la nañu fexe itam ba seen parti politique yi nañu def plaidoyer bi ci war ba góor jigéen ñi sans ñu déclarer ko nañu fexe ba mën nañu nekk ci instance yi nañu fexe yi tamit ba nañu doon ay candidats ci municipal yi